problème mu Sénégal jeunes yi instant bi lan mooy seen problème. gis nga gis nga tey jii. Mhm. dañoo yegg ba benn instant boo xam ne. Mhm. ñun sénégalais yi man de personnellement. Mhm. Euh, même détenu politique yi ak gaal bi nga xam ne dafa chaviré ca Saint-Louis. bi ma leen di déglu damay rus dama toog ba si yàgg ma ne est ñun. yàlla du ñu boolee ndoo ñun ñëpp rek. wan suñu bopp. Euh, euh, euh, woy ba Pape Cheikh Pape Cheikh waxoon yaa laaxu dina. dina xëy dikkale ñu. yàlla na bu mu ñu dal mais fa lañ fa ñu jëm parce que yàlla waxam du dañ te le monde même boo génnee affaire yàlla nga teg fee. Mm-hmm. àddina cycle la gis nga lu fi xew. soo jàngee histoire politique ci fii walla beneen dëkk. li mm-hmm. nga gis ne mës xew. problème mu Sénégal actuellement nii. bi gën a mag poudrière bi nga xam ne ñun ñëpp dañ ci toog muy man muy yow muy doyen muy keneen ak keneen mooy le chomage des jeunes xale yi jàng nañ ba pare am seeni diplôme war a tekki tekki woo war a faj fajoo. ñu bëri jàng war a réaliser sa bopp ba pare ñeneen ñi mu amuñu amuñu formation ñi war a takk jabar ñi war a fonde ay famille loolu mooy société lan mooy hmm. société leneen loolu mooy société société boobu nag lan moo koy doxal entreprise. entreprise yi mën a recruter tey jii kenn ci yéen ñi mënul wax ne amoo ci sa connaissance fukk jaar fukk yu la naan est-ce que amoo fii connaissance nga utal ma liggéey. bien sûr su économie doxee entreprise yi dox instant bi du ñu am problème boobu parce que boo xoolee état. Hmm. tey jii état fonctionnaire yi ak yooyu mais ñi muy employé matuñu 3 pour cent de la population active. économie société bi ci boppam moo ko war a doxal nit ñi di liggéey di employé di nii di entreprendre et cetera ah. muy dox mais bu fekkee ne dem nañ ba xool ne ne ñun ñii tey jii chaque jour nit taxaw yónnee ñu CV soo defee tey benn appel à candidature ci benn poste ci sa entreprise da ngay jot ay CV ba dootoo mën a tànn